صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم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 أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم بوكي جولي جو تدي جناو بنو سنتي يالا ميغا خمني موم رك موي بور موم رك موي يو اكتنت ndax xéewal ak teranga yi ñu defal dëgg-dëgg li war jaam mooy mu di ko sant mu ngi koy sant ci loolu moom mi nga xam ne moom rekk mooy buur di ko ñaan mu dimbali ñu taxawuñu aar sàmmuñu ba teg ci yoonu njub di ñaan tamit xéewal ak mucc yàlla na ko wàcce ci kaw suñu sang bu baax boobu nga xam ne ci moom la ñu wàcce woon alquran ngir mu nekk teranga ngir mu nekk lu ñu mën a niitoo ba mën a tegu ci yoon xéewal googu ak mucc googu na wàcc ba ci waa këram yu baax yooyu moom yonente bi sallallahu alayhi wa ak saxaabaam yu tedd yooyu ak képp kuy roy seen jeexit ba keroog ba su penc di taxaw yàlla nañ ci yàlla boole di leen ndokkeelaat ci weeru tedd bi di chahru ramadan di chahrul alquran di weeru alquran di nuyu mbokki julli di fi teew yépp ku nekk ci sa tur ak sa sant di la baalu xaq ginnaaw bi ñu leen baalee di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu boole ñu jéggal di jiital nag ci nuyoo bi ki yàlla jiital ci barab bi muy imaamu ratib di sunu wayjur di sunu sëriñ ñu ngi koy nuyu nuyu bu gën a tedd nuyu bu gën a sel di nuyu ñi nga xam ne ñoo ŋànk jumaa ji tabaarakallah ba mu nekk ci melokaan bi nga xam ne neex na gis di ci jiital suñu wayjur suñu kilifa alxaaj Yuusufa Wàdd buñ ko nuyoo rek nuyu nañu waa association bi yépp di nuyu mboolem koo xam ne yaa ngi ci jumaa ji di ñaanal yàlla mu defal la jàmm sunu waxtaanu tey nag mbokk dafa aju ci alquran ndax ku nekk si ñun xam na ne weer wii mooy weeru alquran ndax borom bi tabaraka wa taala moo njëkk àddu ci alquran mu ne chahru ramadan alladi unzila fihi alquran mu ne weeru koor ci la ñu wàcce alquran wàcce boo xam ne benn wàcce la ko def indi ko ba ci asamaan bi mujj mu yemale ko foofu gannaaw gi nag muy wàcc nag selon événement yi selon xew-xew yi alquran borom bi ci boppam moom moo ko njëkk définiral boppam ñu ngi koy dégg léegi ñu koy jàng borom bi ne aoudu billah min alcheitan rajim bismillah arrahman arrahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين بوبو ديفينيسيون لا بروم بي نجيك جوخي سي القران te mooy ñaareelu saar bi nekk ci kaamit bi mu wax ay xaraf boroom xam-xam ñu ne yàlla moo xam lim ci namm waaye mu ne téere bele mu ne amul benn sikk nee na jub la ñeel ñi nga xam ne dañoo am ragal yàlla yàlla ci yàlla boole kon définition bi njëkk ci alquran mooy amul benn sikk laa rayba fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn xadis mu ne lépp loo xam ne da ci am sikk bàyyi ko dem ci li nga xam ne amoo ci sikk da ma yaribuk ila ma la yaribuk comme alquran nag amul benn sikk ku bëgg mucc ba doo am jax-jaxal fexeel rek dem ci alquran alquran nag mbokk yi waxu borom bi tabaraka wa taala la ginnaaw bi ko yàlla définiré ci ñàkk sikk bi mu am moom alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moom mi nga xam ne yàlla dafa wàcc ci moom alquran ngir mu leera ñun ñu ko mu ngay wax naan kitaabullahi fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu ma baynakum huwa alfaslu laysa bilhazli من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الغدا في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين ونوره المبين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم فمن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وهو عصمة لمن تمسك به wa najaatun liman ittabaahu yeneen ci bi nee na téere yàlla bi borom bi dafa am lu mu ci dëxën lu mu ci def def na ci ay nettali def ci ay xibaar yoo xam ne moo ñu jiitu woon ñun yamu ci de mu ñuy tamit solo li nga xam ne moo nar a am ëllëg maanaam li wéy alquran daf ñu koy nettali waaye nag yemul ci nettali ñu ko kase waaye dafa bëgg ñu jëlee ci ay jàngat ndax buñ la nettalee waa ju baax fi mu jaar ba am lu baax dañoo bëgg yawit nga jëlee ci nettali bi ab jàngal ab jàngale maanaam exemple la war a doon ci yow ne diw moo xam waliyu la moo xam saxaabala moo xam yonente la doxalinam wala dundam nii la woon ñu nettali ko dañoo bëgg nga jëlee ci ab jàngat kon alquran mi ngi nettali li li wéy li nga xam ne teranga la woon ñi ko ñi defoon lu baax am teranga alquran nettali ñu ko ñu war ci jëlee leçon yemul foofu mu nettali ñu tam kàccoor yi nga xam ne ñu ngi fi woon démb di mbëru bañ a topp borom bi di noonoo ak seeni yonent di sonal ay jaamub yàlla fan lañu mujj mooy ci toskare ak alkande nga jàngee ji tam ne ku melokaanoo yooyu la melokaan li daloon ñooñu moo lay dal naaudu billah yàlla na ci yàlla musal mu ne tam alquran dafa ñëw ngir nekk àtte nekk ay loi yuy dox seen diggante nee na alquran day tàqale diggante dëgg ak caaxaan nee na képp koo xam ne da ngaa mbëru wala sa bopp wala nga doyloo say gis-gis wala nga doyloo sa xam-xam bay diir mbagg yàlla da daal di dog doo am benn cër nee na képp kuy sàkk njub ci feneen fudul ci téere yàlla bi yàlla dalay lay seetaan nga daal di sànq nee na mooy buumu yàlla bu dëgër bi nga xam ne du fariñ ci ko bay dagg ndax alquran waxoon nañu ne wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mu ne nga lërik waay yéen ñëpp ngoy leen ngoy leen jàpp leen ci buumu yàlla bi buumu yàlla boobu nag borom xam mi ngi koy firi ñu ne mooy alquran wala saa sam nee na huwa hablullahi almatin mooy buumu yàlla bu dëgër bi nga xam ne du firiñ ci ko du dog mu ne wa nuuruhu almubin nee na alquran mooy leer gu bir waaw leer gu jolli jëm kaw ba ñépp di ko gis ñëpp di ko dégg ñëpp di ci taataane leer nee na wa huwa zikrul xakim mooy fàttali bi nga xam ne dafa xereñe lu nekk rek da koy teg place am waaw ci atte yi lu nekk am na fu ko alquran teg ba constitution bi sax boo ko xoolee muy dustóor alquranul karim moo war a nekk constitution wu jullit ndax amoo jullit amul benn sañ-sañ wala amul benn droit def dara wala wax dara lu mooy ne dafa seet wala mu gëstu lan la borom bi tabaraka wa taala wax ci jëf jooju wala la borom bi tabaraka wa taala wax ci wax jooju moo tax mu ne alquran mooy zikrul xakim dana tam mooy yoon wu jub xocc moom alquran waaw ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dafa am bés mu jël loxo mu tedd wa sallallahu alayhi wa sallam rëdd aw rëdd wu rëy mu mu rëddee benn rëdd bu rëy benn trait bu yaatu mu jël bant maanaam ci misaal mu jël bant bale rëdd ay ñan ci wetu rëdd wu rëy bi mu ne wa anna hada siraati mustaqiman fattabicuhu wala tattabicu subula mu ne rëdd wu rëy wi ma tàllal man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy yoon wu jub pocc bi mooy alquran mu ne topp leen ko bu leen topp ñal yi mooy yi nga xam ne moo nekk ci wàll yi ci côté yi te du alquran maanaam mooy yenn idéologie yi ngay dégg léegi nit ñi di ko am yenn gis-gis yi ngay gis léegi nit ñi di ko am ak nit ñi fi leen àddina toll ba ñu dem sax ba mel ni dañoo fàtte borom bi tabaraka wa taala mu ne nag képp ku wax kuy waxee alquran yëgal ne sa wax dëgg la fa man qaala bihi sadaqa képp kuy waxee alquran mooy lan li ma wax léegi balaa ngaa wax fexeel xam lu alquran wax par rapport li nga bëgg wax ci bàyyi xel bu baax moo tax mu ne ku waxee al alquran rek wax nga dëgg mu ne ku ko àttee yow maanu la maanaam li nga àttee day nekk lu juste ndax alquran léppam lu jub la léppam leer na léppam baax la yamul foofu de nee na képp ku ko jëfee keroog yowmal qiyam di nga am récompense bu yaatu di nga am payor, mu ne tam képp ku sax njub ci alquran gindeeku nee na mooy protection bi nga xam ne képp ku ci mooy yow da ngay mucc kon ginnaaw bi yàlla àddoo ci alquran wax ne téere bi amul benn sikk yonent bi tam won nañu alquran ban dayoo la am alquran nag mbokk yi dafa yàlla da ko wàcce ngir mu defaral ñu société bi ngir tamit mu defaral ñu ñi nga xam ne ñoo dëkkee société bi borom bi di addu ci alquran mu ne wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lilmuminin mu ne ñun yàlla ñoo wàccee alquran def ci loo xam ne saafara la waaw loo xam ne saafara la saafara nag buñ ko waxee mooy dafa am jàngoro bu am wala jàngoro yu am léegi nag alquran bu mu ñëwee fekk fi jàngoro yooyu lii rolam mooy mu saafara leen fi qulubihim maradun fa zaadahum allahu maradaa yàlla nee na ci alquran ci biir xol yi am na ay feebar nit ñi sàggan ba fajuñu feebar yooyu yàlla seetaan leen seen feebar yi yokku te xool ci misaal rek bu la amee lu la fi dal benn góom bu ndaw nga sàggane ko bu yàggee mën na jur lu rëy kon dafa am ay feebar yoo xam ne moo ne ci xol yi kon alquran dafa ñëw ngir saafara feebar yooyu wa rahmatun dafa ñëw tamit ngir nekk yërmandi moom alquran gannaaw ba mu saafaraa feebar yi dafa ñëw tamit ngir nekk yërmandi maanaam yërmandi yàlla la bu yaatu waaye nag ñen ñoo ko mën a jëriñoo mooy ñi nga xam ne dañuy bàyyi xel seen borom tabaraka wa kon mbokk yi ci feebar yooyu bi ci gën a rëy mun nañ ko lim mooy lan mooy koo xam ne gëm yàllam mooy al iman billah nekkul lu dëgër ci moom boobu ci feebar yi la bokk rëy ci feebar yi la bokk añaan ci feebar yi la bokk gis sa bopp ci feebar yi la bokk naw sa jëf ci feebar yi la bokk kon alquran dafa ñëw ngir saafara feebar yooyu feebar yooyu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallama moom mi nga xam ne moom rek moo firi alquran feebar bu ci nekk rek wax nañu naka la ñuy def ba mun koo saawara bu ñu jëlee exemple lu mel nii rek kañaan yonent bi wax na mu ne maa ngi leen di moytandikuloo kañaan mu ne kañaan dafa nekk loo xam ne day lekk say jëf yu baax comme sawara ñu muy lekkee mat maanaam nga liggéey fi liggéey bu rafet jaamu yàlla jàng alquran dox mbokk wax lu baax def lu baax ba pare jur loolu yépp daal koy taal mu nekk nag loo xam ne pertement la lay jural ne saa xam ne maa ngi leen di moytandikuloo kañaan nee na kañaan day lekk say jëf yu baax comme sawara nu muy lekkee matt